Euh, fu ngeen mën a nekk euh, di jégalu bu baax ci quelques minutes euh, ci dorteelu soir d'info di sant sunu borom bu baax mi ñu mayaat wér ak kàttan ba ñu taxawaat fii jàkkaarloo ak yéen ci soir d'info soir d'info nag xam ngeen ko démb ba léegi Sénégal mu ngi ci tiis ndax nag ñi ngi sax ci deuil national décrété par le président de la République gannaaw accident bu nga xamante ni am Euh, ci euh, Sénégal gannaaw bateau le euh, daanaka li am démb ci accident de la route jéggi na dayoo euh, Sénégal yëpp sëngeem euh, jamono yi euh, li ci pexe nag mooy ñu seet nu ñu koy saafara balaa mbir yi di fi amaat wala boog di fi ëpp loxo moo tax ñi invité sur le plateau koo xam ne nekkoon na directeur général bu CETUD di itam expert en mobilité routière ñi mu ngi koy tuddee docteur Ousseynou Thiam Ousmane Thiam ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci plateau Soir d'info Binta maa ngi lay fay mm-hmm. di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah seen euh, téléspectateur yu góor yi ak yu jigéen yi mm-hmm. mm, ñu ngi ci ndorteel at mi ñuy ñaan yàlla yàlla defal ñu ko atum jàmm euh, atum wér-gu-yaram bu ma ne atum wér-gu-yaram nag sécurité routière dafay dugg it waaw mm-hmm. yàlla defal ñu moins d'accident waaw waaw loolu la ñëpp di ñaan moo tax nag ma bëggoon sax déjà dès à présent euh, nga wax ñu euh, naka nga dundee mbir mi nga xam ne xew na fi démb waaw Binta li ñu gis démb lu lu lu mhm. waaw euh, ñaari oto yu mag daje noonu te li jar a xam mooy gis nga accident benn néewu ci tey suñ la dugaloon ci laboratoire wa def ñaari wane la accident rek ñaari oto yoo xam ne yu ndaw déjà ñu ngi ci trente kilomètres à l'heure rek nga gis ni accident lu doy waar la alors waxantuma laak nag bu dee oto yu mag ak chargement yi ñuy gis ba pare nag mu di ñu ànd ak nag benn vitesse bi donc loolu yëpp ay facteurs aggravants la waaw moo tax euh, mbiru démb mi euh, mbir mu doy waar la dañuy profiter pour euh, massawu ñi nga xam ne si am nañ ci mbokk mbokk mu faatu ñu ngi leen di massawu bu baax mbokk moo xam ne si daf ci jële ay blessures ñu ngi leen di massawut di ñaan yàlla mhm. yàlla wéral leen ci ni mu gën a gaawe mhm. di wu nag nation bi yëpp. alors yaa ngi koy wax sànq maa ngi koy wax itam ne nekkoon nga directeur général bu CETUD. CETUD mhm. euh, ku ku nekk xam na ne euh, moom euh, moom moo doon sur mun nañu wax ne moom mooy saytu wàllu mobilité urbaine ci ci ci Dakar. su ma ko sañee wax noonu. te yaa ngi koy wax itam si sa biir wax sànq wàllu bagage yi ñuy yeb ci oto yi. wàllu vitesse. à chaque fois bu ñu waxee accident am na loolu mooy dellu siwaat malgré toutes les mesures qui ont été prises appliquer qu'est-ce qu'il faut faire maintenant waaw ne malgré toutes les mesures qui ont été prises et qui n'ont jamais été appliquées alors ça c'est un problème euh, soo jëlee bilan d'étape bi nga xam ne si ministère des infrastructures des transports terrestres et du désenclavement mm. defoon nañ ko en juillet 2019 boobu ci occasion forum la woon ci wàllu sécurité routière mu nekkoon xam nga booba ñu ngi ci première décennie mondiale de la sécurité routière 2011 2020 pour dire que phénomène bi nekkul lu localisé fii c'est pas africain c'est mondial ñu ngi woon ci décennie boobu et on était à un an du terme de ci ci terme de fin u décennie boobu boo xoolee euh, bilan ba bon euh, sore na par rapport ak objectif yi nga xam ne si moom lañ bëggoon waaye lenn ci li doon gàllankoor mooy texte yi ñu jël ba pare duñ ko appliquer waaw lu tax nag ñuy jël texte ba pare duñ ko appliquer loolu question bu am solo la waaw euh, euh, texte dëgg la soo koy jël xam nga am na temps pour waxtaan sottante xalaat muy temps consertation loolu dafa am parce que it décision boo koy jël surtout ci lu mel nii dafay jël nga baax jël ko en toute connaissance de cause donc loolu temps boobu dafay am mais boo jógee ci loolu nag temps wu décision waaw décision nag bu ñu ko jëlee ba pare dafay baax ñu xamale ko nag large information ñi ko acteurs yi ko war a yëg yëg ñu yëg ko ak ginnaaw loolu nag duñu yem ci loolu dinañ informer dinañ sensibiliser daanaka ci loolu lañ dëkk waaye nag il faut sanctionner Mais justement, c'est la sanction qui n'arrive jamais. Euh, 2017 déjà, on avait fait un conseil interministériel, comme nous l'avons fait en Corteil. Ça a eu accident, mais alors on se réunit, les ministres se réunissent, les acteurs se réunissent, on prend des décisions, on ne les applique pas. 10 mesures en 2017, la loi est là, lan lañuy ban lan moo war a mën a génnaat lu ëpp li nga xam ne tegoon nañ ko fi te appliqué wuñu ko. effectivement foofu bu ñu ci tolloo dañuy xool ñaari mbir benn bi c'est l'applicabilité du texte de loi de règlement mhm. décision bi ñu jël dëgg la jël nañ ko après waxtaan mhm. mais est-ce que lu ñu mën a appliquer la ci contexte bi ñu toll mhm. alors loolu aussi dafay renvoyé ci leneen xam nga euh, jàngoro pour nga faj ko il faut nga xam ko. maanaam xam nga médecins yi dañuy def diagnostic. waaw doog a indi remède. absolument. ci wàllu sécurité routière nag ci suñuy réew ci Afrique. Mhm. Sénégal benn la ci réew yooyu. phénomène bi xam biñ ko war a xam dafa des. Ah xam nga lu tax mu des. Mhm. mooy donné xam nga accident su amee. Mhm. di nga ko relever. am na document bu ñuy wax BAC bulletin d'analyse des accidents corporels ci lañuy information yëpp fi accident bi am ci yan condition la amee guddi la wala bëccëg la yan bu oto la foofu leeroon na wala leerul tali bi nu mu mel yàqu na wala yàquwul am na signalisation yooyu yëpp dañ ko ciy def waaw chauffeur bi est-ce que àndoon na ak mu déet yooyu yëpp dañ koy def alors loolu nag dëgg la état bi def na ci ay effort waaye léeg-léeg dafay am problème mu remonter données yooyu xam nga données yooyu en général police ak gendarmerie ñoom ñoo koy def bu ñu paree dañ ko war a yónnee direction des transports routiers. duñu ko def dinañ ko def sax mais léeg-léeg difficilement xam nga aussi léeg-léeg yenn services yi léeg-léeg moyens yi dinañ bëgg sax waaye moyens yi aussi du demee noonu mhm. waaw alors loolu. wala ñu gëm ci seen bët aussi. peut-être pas man gëmu gëwuma sax ñu gëm ci seen seen bët. parce que boo xoolee muy police muy gendarmerie. dinañ génne ay statistiques chaque année dinañ génne ñoom seeni i mais statistiques yooyu yëpp nag dafay baax ñu fédéré ko. waaw parce que loolu mooy tax ñu gën a xam jàngoro ji te sax euh, doyul waaw parce que li. li ñu war a jàng ci li ñu war a am sax ci information ba tey sax dafay jar ñu xoolaat ko ci ci ci ci document yooyu alors boo xoolee euh, <coughs> rapport bilan boobu ma la doon tuddal sànq en 2019 effectivement lenn ci recommandation yi ñu doon def mooy bulletin boobu ñuy wax BAC ñu institutionnaliser ko ba nga xam ne si Euh, ñi ko war a toppatoo dinañ ko toppatoo ndax am nañ moyens yi ci war fañ ko war a exploiter aussi dinañ ko exploité ak xam-xam bu doy waaw donc moo tax xam-xam bi desee néew mhm. am na nag yu ñu xam te it ñu ngi ci ay solution mhm. waaw parce que tey boo xoolee lenn ci problème yi amoon mhm. mooy li ñuy wax dispersion des compétence ñu doon yëngatu ci wàllu sécurité routière dañu bari woon. Mhm. ki jàpp fii ki jàpp fële ki jàpp feneen bu amul coordination bi ci war. Mhm. dafay doy waar waaye tey. Mhm. loolu ci pas yi am la sur le plan institutionnel. da ngay gis ne taxawal nañ agence nationale de la sécurité routière waaw donc mu am tey structure boo xam ne moo am responsabilité pour. améliorer sur la sécurité routière bi ci réew mi euh, docteur il faut wow. mettre en place des structures waaw euh, mais loolu rek doyul il faut aussi mesure yi nga xamante ne ñi ngi koy appliquer te état mënul nekk ci réew mi ba mhm. pare na yenn information yi jotu ko c'est parce que dañuy jël seen ay mesures mhm. après euh, ñu wax ko pression bi commencé euh, syndicaliste yu jóg ñu daal di reculer est-ce que loolu tamit solution dina fa jóg dina fa jóge nekkoon nga directeur d'étude. c'est vrai alors la jàngal ne pression dina am. foofu mm-hmm. c'est vrai c'est-à-dire xam nga maa ngi woon ci benn pàcc bi. Mm-hmm. muy connaissance su phénomène bi. Mm-hmm. bon effectivement léeg-léeg intervention yi. dafay am faut dire les choses. loolu ci limiter. efficacité mesure yu ñuy jël la bokk. intervention nag du Sénégal rek. fépp la ci àdduna bi waaye ñun nañu xool li ñu concerné. waaw li ñu concerné mooy vraiment ay kilifa aussi bàyyi jël ci seen temps waxtaan jël ay décision ba pare nag décision yooyu ñu tu ko appliqué. loolu nekkul ci li avancé loo réew. justement waaw dëgg-dëgg. état bu état buy reculer devant devant les pressions. est-ce que état boobu moo contribuer aussi si ñuy fooyee bakkanu doomu aadama yi. parce que mun nga taxaw ci tali bi gis un tombeau à ciel ouvert qui circule di romb ay ay ay euh, ay ay gendarmes di romb ay policiers mais tu te demandes ñii est-ce que yoon bi amoon na ay des garde-fous. jaaduwul oui mais gis nga. mën naa ne lenn ci li indi loolu wax ko indi waaye lenn ci li indi loolu mooy li ñu doon wax léegi intervention xam nga yow aussi policier walla gendarme bi nekk ci tali bi ak nekk ci tali bi ni mu méttee il faut dire les choses ah nga def sa liggéey verbaliser nit kooku war a dem fay ñu jox ko permis walla sax ñu jaarale ko ci yoon intervention am fayul ñu delloo ko permis kooku boo ko defee benn yoon ñaari yoon ñetti yoon. nga dégg loolu. nekkul luy motiver agent bi nga xam ne si mu ngi ci mbedd mi. ak coono gi ci nekk yëpp. waaw donc vraiment. moo tax bon fii c'est toute une chaîne parce que mënuñu wax rek chauffeur bi mu transporteur bi ci la bokk waaw oto bi nga xamante ni vraiment euh, fourrière la waroon nekk bu rombee bu la rombee nga ne kii fan la jëlee visite technique fan la jaar ba am ko euh, oto boobu c'est ça ce qui veut dire que chaîne la c'est une chaîne alors foofu aussi am na gis nga par rapport ak donc application wu texte yi mm-hmm. am na beneen aussi effectivement problème boo xam ne si on peut dire c'est à la décharge des force de défense et de sécurité. xam nga tudd nga léegi fourrière. waaw mhm. benn fourière moo amoon fii Dakar. Mhm. gis nga ko Grand Yoff fourrière bu ndaw. gis nga police ak gendarmerie. Mhm. xoolal charrette yi. gis nga charrette yi. am na text bu réglementé fi ñu war a jaar. mais xam nga jaaratuñ fa. da ngay gis sax charrette ci autoroute. waaw diggante Patte d'Oie ak Pont Hann léegi da gis ay charrette. lan moo indi aussi loolu ñoom jàpp nañ ay charrette ba tey waaye charrette yi muñ munuñu ko yóbbu seen caserne yi amul fourrière. dañ koy mujjee bàyyi. fourrière amul Dakar non. alors loolu d'ailleurs c'est une donc euh, am na ci étude bu mu ci defoon bu yàggul. Mm-hmm. donc te étude bu yàggul. Mm-hmm. élargir nañu ay compétence am. Mm-hmm. am nañ yaakaar ne incha allah ci diir bu bu gàtt. loolu dina saafaraw mais loolu yëpp problème woon dañuy jël charrette. wala jël oto lu ñu xam fu ñu koy def. oto sax tane na waaye bu dee charrette da ngay dem ci commissariat yi sax gis ñu gaare ko bu yàggee ñu delloo ko seen borom alors yooyu aussi mhm. donc dafa am mais yooyu yëpp mooy li ñu doon wax sànq mhm. l'applicabilité parce que it décision boo koy jël na nga am am nga am nga les éléments pour jël décision bi d'accord mhm. na nga am nag les moyens nag pour mettre en application ces décision mais état amul moyen pour mettre en application ces décisions. non ah, bon foofu nag il faut ñu wax bu wax dëgg xam nga dinañ wax volonté bi. volonté bi am na ndax tey boo xoolee infrastructure yi état mi ngi def ay effort nga xool le parc mais ñu ngi wax ne tali yi dafa xat aussi waaw mais xam nga loolu nag cest à da ngay xool tali démb ak tali mhm. waaw mais boo xoolee nag àla boo xoolee tali yi ñuy defar tey mhm. donc macha allah ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi gën a yaatu léegi yu démb yi nag mhm. xam nga bu njëkk surtout que mooy yi demeewuloon noonu on avait ay routes économiques la ñu amoon noonu lañ ko mën a tuddee. waaw mais léegi nag ñu ngi yaatal ñu ngi gën a dëgëral goudron bi dëgg-dëgg bon qualité bi yokk na. bon xëy na nag am na axe boo xam ne lu ci mel ni corridor. donc boo xam ne si inter sous régional. loolu xëy na dina baax. ñu jéem a wut moyens yi pour def ko deux fois deux voies. xaalis la nag waaye jar na ko it pour économie jar na ko pour sécurité. waaw mais nag comme ni ko ñenn ñi di waxee route nationale yëpp loolu. looy planifier la mhm. waaw mais justement par rapport à l'applicabilité bu ñu doon wax léegi waaw xëy na bu ñu mënul appliquer yëpp yenn yi sax loo xamante ne danger la même pour le chauffeur euh, même pour les euh, les usagers même pour les les les ñi nga xam ne ñooy circuler euh, jël ay bagages sol oto bi ba oto bi di titubé yooyu xanaa mun nañ ko war a dindi xanaa loolu ñoom duñu ko bañ les transporteurs wala bokk euh, yenn oto yi nga xamante ne waratuñu daw ñu arrêté leen yooyu xanaa du du duñu ko bañ Euh, mën naa ne sax euh, transporteurs yi. wala chauffeurs yi de manière encore plus particulière ñoom ñoo yor oto bi am responsabilité bi. Euh, am na yoo xam ne si. ci waxtaan duñ ko bañ. c'est-à-dire léeg-léeg ñoom li ñuy li ñuy bañ boo xoolee seen syndicat yi mooy ñu sible leen ñoom rek. bàyyi ñi ci des. alors que responsabilité bi partagée la. ku ci nekk daf ci am pàcc. waaw. man naa nag ne état bi nag man nañ ne nag ne état bi nag dëgg-dëgg pàcc bu mag bi nag mën nañ ne loolu état bi la ndax comme ni ñu ko waxee léegi volonté am na solo ñu ngi defar tali ñu ngi changer parc waaye nag donc sanction yi war nañ ko def intervention yi nañ ko wàññi waaw euh, nekkul pour dëgg parce que sa mbokk it boo ko bëggee dimbali wax ko dëgg teg ko ci yoon waaw waaye ku def naka su dul noonu. boo ko bëggee defal intervention dimbali woo ko dimbali askan bi moo tax foofu véritablement sanction daf ciy baax. waaw et puis nag soo ko jëlee it boo demee ba ci kanam nga taxaw nga évaluer waaw bu dee am na lu ñu ci jar a soppi. ñu soppi ko pour gën a avancer. parce que bu ñu déggee démb président mu ne euh, bu bu subaa dinañ waxtaan xool lan moo waral lii. après on va appliquer euh, les mesures yi nga xam ne mooy découlé ci conseil interministériel bu tey alors que y avait un autre conseil interministériel en 2017 dix points avaient été arrêtés mais bof. loolu la ñuy wax la pression euh, l'État qui recule tous les jours ça veut dire qu'on va continuer à s'émouvoir et que les accidents vont vont vont se poursuivre. alors sànq ñu ngi doon tudd volonté politique bi. volonté politique bi am na solo. waaye nag leneen li ko solo mooy ñu am le courage politique. c'est moom laa wax foofu nag véritablement il faut nag politique yi nag léeg-léeg ñu fàtte seen bopp. Mhm. Ah, fàtte élection bi ñëw. mais loolu nag mooy ah. bi nag justement. te xam ne nag yàlla moo leen fi taaj. absolument du keneen. Mhm. su waree jeex. Mhm. dafay jeex. suñ fi waree des. dañ fay des. waaw muy jeex. muy des. vraiment nañ ci ànd ak sago. et puis nag vraiment li nga xam ne si moom la ñu war a def. ñu taxaw ci. Mm-hmm. waaw mais est-ce que tey jii euh, docteur lan mooy doon euh, la solution mais bu fekkente ne mënaguñu appliquer état dafa ragal ci pression yi day day day dellu ginnaaw à chaque fois lan la lan mooy solution idoine yoo xamante ne tey bu ñu ko defee euh, par exemple le renouvellement du parc automobile bu ñu doon wax peut-être le BRT mi ngi fii TER bi mu ngi ñëw est-ce que yooyu bu amee vraiment yenn oto yi <laughs> du ñu dem. alors effectivement. duñ fi jóge. effectivement. Oui. la sélection va se faire naturellement kenn dootul duggati ci ay tombeaux à ciel ouvert su ñu amee assez de. modernisation secteur bi xam nga léegi tudd nga TER. BRT tudd nga BRT. Hmm? Mhm. donc yooyu mu ngi dugg ci modernisation secteur bi. Mhm. ba ci oto yi ñuy remplacer. mi ngi dugg ci modernisation secteur yi. Mm -hmm. infrastructure yi comme ni ñu ko waxee. Mhm. waaw donc modernisation secteur bi. effectivement lu ama am solo la. waaw waaye nag du yem ci loolu rek. parce que tey boo jëlee BRT ak TER. muy ay moyens li ñuy wax capacitaire muy ay moyens yoo xam ne dañ leen sàkkal seen yoon. muy ay moyens yoo xam ne si mën nga am ñoo tel heure nga ne bu ma jógee sama kër tel heure dinaa mën a dem ci réunion bi. absolument xam nga yooyu. Mm-hmm. su amee ñu développé ko. Mm-hmm. effectivement. Euh, ku ci mel ni man am otoom dina ko bàyyi léeg-léeg. bintu boo xoolee circulation bi. fin du mois. oto yëpp ay génn. dëgg la waaye boorul la dix. Mhm. poos yi rës. Mhm. oto yi néew. lan la lay wan. Mhm. daf lay wan ne euh, transport en commun bi. transport collectif bi. am na nu mu doon mel. ni mu doon mel nag mu ngi feeñ ci BRT ci ci TER bi dina ñëw ci BRT bi. loolu su amee. nit ñu bari dinañ bàyyi seen oto yi. parce que ñun dañu foofu dañ fa wuteek tubaab bi. suñu mbokk Europe yi. wala États-Unis parce que ñoom ils sont tributaires de la voiture particulière pour ñoom ci expression liberté la bokk. ñun nag nous sommes plutôt tributaires ñun. vraiment transport en commun yi. mooy suñuy sunu oto. Mhm. foofu waaye nag dafa melul ni mu war a mel. waaw ñàkk mel ni mu war a mel boobu ci confort ci sécurité ah fiabilité service bi moo tax ba nit ñi léeg-léeg ñuy débrouillé wu di jël seen oto ci conditions yu difficile waaw alors loolu nag su amee gis nga loolu su amee boobu sax day am gis nga loolu su amee su gënee développé da ngay mm-hmm. gis ne circulation bi dina gën a feex accident yi su amee choix dina gën a néew absolument waaw accident yi dina gën a néew mm-hmm. bon léegi nag xam nga loolu one ci mm-hmm. niveau urbain bi mais nag niveau interurbain bi waaw waaw foofu nag xam nga xam nga binta foofu le grand problème tey mm-hmm. jii xam nga gi boo xoolee ñaari oto yooyu daje mm-hmm. euh, lenn ci li ko waral mm-hmm. mooy secteur bi commencé nañu professionalisation ci urbain bi mais am na lu des waaye interurbain bi professionalisation bi dafa des maanaam maanaam xam nga tey boo xoolee chauffeur bi situation bu précaire la nekk amul contrat dañ lay sas waaw liñ la sas boo ko indiwul man nga ñàkk sa emploi te boo ñàkkee keneen pare na pour jël alors donc condition de travail yi mhm. ah dafa des ba ci parce que boo xoolee tey accident yu bari mhm. fatigue moo koy indi mhm. fatigue bon Euh, toujours ci cas est-ce que est-ce que état mënu woon intervenir ci loolu parce que ñoom tam dañuy exploiter les seen liggéeykat yi yàgg nañ taxaw fii di ko wax mais état dafa taxaw di leen seetaan ñuy exploiter te ñoom ils gagnent en retour beaucoup d'argent alors loolu effectivement boo xoolee niveau urbain bi état daf ci taxaw banque mondiale jàppale woon ko loolu moo indi woon première opération renouvellement du parc mu ànd ak professionnalisation parce que yëf yi nekkul mu changer oto rek mhm. mais surtout changer doxalin mhm. waaw alors fii aussi nag mhm. dugg ci renouvellement parc interurbain bon waaye nañu góorgóorlu ba mu ànd ak professionnalisation parce que professionalisation mooy indi xel mu dal ci chauffeur chauffeur bu xelam dalul man na nu nu nekk mën na ko mel ci tali bi waaw te nekkul li gën waaw professionnalisation boobu nag lan lay àndal sànq wax nañ ko dafay ànd ak donc transporteurs yi seen bopp ñu gën leen former comme ni ñu ko defee ci urbain bi ñu xam lan mooy seen relation ak seen personnel mm-hmm. ñu xam lan mooy seen relation ak état bi mm-hmm. ah bon chauffeur yi seen bopp mm-hmm. ñu forme leen code am nañ seen euh, permis de conduire ba pare am nañ seen code de la route xam nañ seen seen code de la route waaye nag naka la ñuy comporté woo parce que problème bi nekkul rek am code de la route mais naka ngay comporté woo ci tali bi xam nga léeg-léeg ñu ne Euh, taaliba xatul xol ya xat mhm. waaw parce que léeg-léeg di nga gis nit mënul dem mu taxaw mu mënul dem mu bloqué circulation ah alors kooku fan la jëlee permis ah, c'est ça ah. le problème aussi aloos ku jóg mën naa am permis alors foofu aussi vraiment à la décharge aussi mhm. de des services waxuma ne nit ñi du ñu def naka su dul noonu mhm. mais xam nga on a connu une période ak beaucoup de faux permis faux permis bon xëy na léegi nag ak euh, digitalisation bi donc mën nañ ne loolu donc euh, mi ngi wàññeeku. waaw mais encore une fois à yi ñu doon wax. waaw <laughs> waaw kooku aussi. yooyu yëpp am na baax na mooy courage politique bi ñu doon wax léegi rek waaw courage bi. mesure yi moom bu ñu ko appliquer il faut il faut ginnaaw nañ ba pare. Mhm. il faut dogal. il faut. appliquer il faut évaluer. absolument merci <laughs> merci beaucoup. xam naa loolu waa jeex na <laughs> dañoo xaw a tardé. waaye wax nañ lu xaw a am solo. applicabilité mesures yi moom faw mu am. bu ko budul lool rek. Euh, ni ñu ko waxee accident yi du du dakk euh, ñu ngi lay gërëm bu baax docteur Ousmane Thiam di expert en mobilité euh, urbaine di nekkoon itam directeur général bu CETUD gërëm la sant la dem publicité gannaaw publicité yi Mamadou Mohamed Ndiaye dina fi teew pour le journal.